avant tout damay présenté wu Khadim Diop secrétaire général des jeunes à ma droite y a Abdou Fall le trésorier sama beneen côté Mama Diata chargé de l'organisation bon li ñu def c'est juste indi leeral ci coow yi nga xamante ni jot na fi jóg mooy xaalis bi nga xamante ni dugg na fi ci pour lancement caravane vacances citoyennes dafa am xaalis bi fi njëkk ñëw xaalis bi dañ ko jot ci ñaari pàcc pàcc bu njëkk bi mu ñëwee ñu nag suñu moroom jeunes yi nga xamante ne nekk nañ zone nord bi teg nañ ko sur table séddale ko bi ñu ko séddalee ba pare pour mobilisation ñu jot information que ni suñu morom yi nga xamante ni séddoo nañu ak ñoom ñoom pare wuñ pour mobiliser te wax nañ ko ñun bañ dégg ko ci loolu bi deuxième wàll bi ñëwee ci lañ jël suñu responsabilité ñu en tant que jeune boo xamante ni parti bi rek moo ñu ñor ñu niñ comme lii pour mobilisation la amul lu ñuy jël di jox nit muy def ci poche ci la ñu trouvé benn terrain d'entente ñun ñëpp ñi nga xam ñu ngi ci zone bi. à l' exception de ba ñi nga xamante ni ñoom d' accord parce que ak proposition bi arrangé wu leen muy dañu décider dañuy taxaw képp ku indi ñu jox la li ñu lay jox ñëpp d' accord ci ñi des d' accorduñ ci parce que ñoom peut être mën nañ ni bëgg nañ loo xamante ni dañ koy def seen poche finalement ñoom ci la ñu boycotté ñun li ñu waroon en tant que jeune def nañ ko muy li nga xam suñu leader Thierno Sall Sall moom la sant muy dem à la base liggéey te bi ñu ñëwee képp ku ñëwoon foofu noonu gis nga la présence massive des jeunes ñi fa ñëwoon gis nañ ko ñun ñi fa nekkoon xam nañ ni tamit la jeunes mobilisée na donc loolu la woo woon pour leeral tuuti parce que bëri na coow yoo xamante ni ñu ngi am bon c'est ça que nous avons à dire je vous remercie